ngir takal ay raaye xale yi tout tank yu nekk ci école maternelle yi ak case des tout petits tolok limab juróom ñu amaloon sa mairie bu Linguère ab fetu fin d'année ci njiitu maire préfet ak inspecteur. damay yëngu ci euh, liggéey boo xam ne tamit day jàppale xale yi tout tank yi donc du loo xam day nekk lu bees ci man donc dama ne peut-être mission bi dama koy yeggal ci ba fii rek loolu moo tax ma ne dama war a tamit euh, jàppale tamit xale yi nga xam ne ñoo nekk ci case des tout petits yu Linguère man tam jéem a daal apporter sama modeste contribution vraiment pour leur éducation. Que jiite ñang mi ak tàggat yi ci Linguère di Madien Fall sakuna ñu yaatal lu ñu mel ci l'école primaire Fait ki nak nag ñu def tay muy xalé yi nga xamné moy mooy ñu ndaw ñi bu doon suñu sago aussi élémentaire bi def fait ku mel non seulement au niveau communal. mais au niveau départemental. préfet bi di Amadou Bamba Koné woné na ak kontaanteem ci bis bi. désormais union moom moy doole. ni ngeen lëkkaloo nekk benn wut benn marraine mu def ci je crois wane bi yoon bi wane na boppam ce qui fait même la journée de l'excellence créer des synergies autour de personnes waa Linguère je crois que madame Ndiaye wane na yoon bi dëkk ci dëkk bi encore une fois defar dëkk bi moo ko gën. doomi jolof yi war ne roy kii di marraine bi di gay Wilane gannaaw ba mu béggalee xale yi tout tànk yi.